97 guddi gi day neex kër gi day neex gàlle bi day neex féppay neex féppay dëgër bu leen bu leen topp de dem leen. ah ngeen a jullee ko ñu dañuy julli yi ñu ànd. ñëpp dem bàyyi ko day julli bu ñëpp dem bàyyi ko kenn pas les prier qui vous a donné ces excuses yow xam naa la yow yow xam naa la ah daje nañu dajewaat c'est des instructions de la hiérarchie ñàpp c'est des instructions de la hiérarchie donc la hiérarchie en plus de d'entraver la liberté d'aller et de revenir des citoyens entrave maintenant la liberté de culte. Et sur quelle base La Constitution dit que j'ai le droit de bouger. La Constitution dit que j'ai le droit d'aller prier. Donc, un ordre ne peut pas violer la Constitution. Et de la loi et le commandement de la loi. Il n'y a pas de... En droit administratif, on parle d'ordre manifestement illégal. C'est pas tout ordre qui est Donc quand un ordre est illégal, vous, en tant qu'officier de, de, police, vous avez le droit de désobéir. Ce n'est pas tout ordre qu'on exécute de manière aveugle. C'est un ah, flagramment illégal. Mais je ne vous en pas, vous faites votre travail, vous suivez les ordres. C'était un moment de communication. Et à cela que notre République est réduite malheureusement. Et vous êtes victime, nous sommes victimes. N'est-ce pas ah jarul wax ci loolu ñu ngi leen di gërëm wax ni Sénégal yëpp fii dara du jàll ndax brouillé nañu yëpp il n'aura pas de son quand ça va sortir mais di wax Sénégalais yëpp su dee son am na génn nañu war a dem julli ji juma en tant que jullit waaye nee nañu amuñu sañ-sañu dem julli ji juma loolu li muy firnde mooy dëkk bi tey liberté dem ak ñëw nga xam ne constitution ñu ko may xaj nañ ñu ko waaye liberté bi nga xam ne may nañ ko képp kuy sénégalais ci gëm-gëmam ngay chrétien ngay jullit wala ngay sax euh, euh, religion traditionnelle ñu ne la am nga droit kii euh, sa sa diine même liberté boobu xaj nañ ñu ko tey loolu laa waxtaan ak sëñ bi nee na dañoo jot ay ordre ma ne ko nag réew day dox ci droit droit hiérarchie des normes la constitution moo jiitu loi yi doog a ñëw règlement yi doog a ñëw un ordre c'est un règlement mënul violer constitution mënul violer la loi or bii or dafa violer constitution violer la loi mais li ma ci tënk rek mooy du ñoom ñoom victime lañ si ñun victime lañ si ay autorité politique yoo xam ne euh, tiit gi ñu tiig ak euh, beew gi ñu beew ci pouvoir moo leen jaral lii lépp malheureusement il a des agents qui sont obligés de faire leur travail et qui sont pas forcément d'accord et nous en sommes tous victimes tey àdduna yëpp àdduna yëpp gis na li xew lii mooy le régime de Macky Sall je vous remercie. jërëjëf euh, yi ñoo ko gisandoo. ñoo ko gisandoo le président Ousmane Sonko daa génnoon ne day dem julli ji ñu ne ko doo fi julli jiyee maanaam daal yow doo dem <laughs> joxee ji say farata yi nga xamante ne te nee na tey moo waroon jiite ji sax jumaa ja. waaw xam nga fële mën na am son amuloon. wax ji du woon sax dem julli ji. Mhm. Euh, ndax gis ngeen tey ni ma sañsee. Mhm. daanaka su ma demoon xam naa ne imam bi day wàcc. Euh, jox ma jox ma football gi nee na tey amuñu droit dem julli ji loolu nag du garaaw la cim réew parce que lii violation liberté constitutionnelle de d'aller et de la waaye violation liberté de culte foofu la ñu toll ci régime Macky Sall ñu gisandoo ko waaye nag euh, dina xam ni askan bi la fa fekk dina xam ni am nañu sañ-sañ bu mat bosam wala bu garaw jërëjëf